jërëjëf maa ngi maa ngi am mbégte bu baax am contentement ñu ngi fii nga xam ne moom mooy ci eh, fii fan la sax adresse Senghor waaye nag ci bés bi nga xam ne nii ci lañ war eh, def suñu tiiraas eh, ñu defoon ko daaw defoon ko daaw di géej dañ koy baaxantal ñu ngi ñaan suñu borom def ci jàmm def ci tawféex benn blessure bañ ci am nag loolu nag moom mooy objectif bi loolu la ñuy ñaan ndax làmb dafay boole tey moo waral lii ñii nga xam ne tey ñoom ñooy def football. et bu subaa bu seen combat taxawee dañuy bëri kon nga xam ne lépp sport la ñuy jaajëfal nag Malick bu baax a baax a baax moom mi nga xam ne nii moom moo taxawal yëf yi waaye comme ni mu koy waxee nag Malick daf ko taxawal ba pare boole ko ak ñëpp nag ànd ak ñoom lépp lu muy def dafay laaj naan di laaj ki nga xam ne moom mooy étudiant laaj ñëpp et te boo nekk ci benn mbir ñu dénk la ko noonu koy doxalee mooy da ngay laaj ñëpp seen xalaat. e kon Malick ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax nag e di jaajëfal équipe yëpp bàyyiwuñu kenn góor gi étudiant Nandi Fall Modja Albouri ak ñëpp ak promoteurs yi ñu ngi jaajëfal ñëpp ñëpp ñëpp e ndax gis nañ rapporteurs yi waaw ñu ngi leen jaajëfal di ñaan coupe bi nag ñu jël ko ah di jaajëfal ñëpp gis nañ ni gars dañuy toog mais mais duñu toog dañuy toog mais dañuy continuer et di jàppale gars yi ci bi loolu ñu ngi ciy jaajëfal ñëpp ñëpp ñëpp leneen li ñu ciy nag mooy ñu ngi bëgg a sponsor yi nu ñu ñëw sponsor nañu ñëw jàppale Gris Bordeaux Gris Bordeaux Gris Bordeaux eh, Gris Bordeaux nous eh, sommes bëgg nga sommes bu roi des boo xool dafa am benn benn communication boo xam ne nii amul ci entre mbër yu mag yi ak mbër yu ndaw yi xam lu ko waral yii moo ko waral ndax la làmb la kon ñu ngi naan ñëw leen ngeen jàpp ci affaire bi dina permettre bu subaa boo bëggee jaar loolu Nandi Fall fii wala Modja wala keneen dañ fay mën a jaar kon ñu ngi leen di oo ci lii bu baax a baax Gris Bordeaux ñu ngi ñaan sa taxawaay ci tournoi bi sa sa sa sa poos ak sa doole ak taxawaay bëgg nañ ko loolu nag mbër ñoom ñoo koy sàkku te ñu ngi la koy ñaan ñëwal jàpp ci mbir mi ndax yëfu làmb la te yëfu sport la lii li ñuy def nii dafa am lu bari lu muy wàññi ci wàllu violence lu baree baree bari bari mën nañ bëre durante ay kurpeñ waaye bu jeexee dañuy xam ne jeex na ndax fii confiance moo waral tey Nandi Fall nekk fi Modja nekk fi Albouri nekk fi Bulldozer nekk fi et nga xam ni mbër yi am na yu bari yoo xam ne nii gars yi ñoom ñoo koy xalaat rek mais nekkul ci mbër kon nag ñu ngi ñaan ñëpp ñëw jàpp ci sponsor yi ñëw ngeen jàpp ci et yéen ñi nga xam ne yéenay taaral làmba ñu ngi ñaan ngeen ñëw dugal seen loxo ci tournoi bi ñëw leen ngeen jàpp ci ku ci mel ni Aziz Ndiaye eh, ku ci mel ni Kandji ah Catalina ak Kanat nañu ñëw nañu ñëw jàpp ci original ah one is the best nañu ñëw nañu ñëw nañu ñëw jàpp ci ndax yëfu làmb la te li ñu bëgg nag suñu ambition mooy yéegal làmb ci kaw a kaw a kaw a kaw loolu mooy suñu ambition kon nañ ñëpp ñëw jàpp ci ñu ngi koy ñaan ah et eh, Ousmane Ousmane si bi nga xam ne nii nag moom la ñu moom la moom la ñuy sàkk pour mu nekk eh, suñu parrain d'honneur Eh, moom it ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax a baax wax dëgg yàlla ndax ndawal guddi la eh, loolu nag waxuma ko waa waa waa Grand Yoff ñoo ko wax eh, noonu la ko ki nga xam ne nii mooy Nandi Fall suñu suñu grand Fuuta noonu la ko ñëpp waxee ndawal guddi la kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal ko tawféex na ñëw jàpp ci ndax yëfu làmb la te làmb moom làmb dafa ànd ak barke na ñëw boo ñëwee doo ko rëccu loolu maa la koy wax Kéba ñu ngi lay woo bu baax a baax ñëwal nga jàpp ci na ñëpp ñëw jàpp ci ndax yëfu làmb la comme ni koy waxee Eh, te dërëm bi génnul gaal gi ah te te xam nga ne fa mu toll dañ am ci luñ jëm nag eh, di ñaanal bu baax a baax a baax maalik bu baax eh, loolu nag maalik wax waxloo ma ko waaye man maa koy wax ñun moom mooy suñu candidat madame le ministre ñu ngi lay ñaan yow mi nga xam ne ni yaay yow tànn ku la neex làmb dafa lu mu soxla rawatina ay ndaw yoo xam ne dañoo am xam-xam kon madame le ministre ñu ngi koy ñaan bu demee bay tànn na jël ki nga xam ne moom mooy Malick Ngom mu tegal ñu ko ci li nga xam ne mooy président wu CNG am na ñu yaakaar ni eh, bés bu ko jiitee am na ñu xew ci làmb yu bari dina soppeeku xam nga xam nga bu ñu naan bu ñu naan làmb aada ak cosaan moo tax te gis nañu ni aada ak cosaan dafa commencé génn ci biir làmb te nag loolu dañ bëgg dañ bëgg mu ñëwaat ci biir làmb teewul lépp loo xam ne ay règlement la ay texte la mbër bu ñu ko waree dagg dañ koy dagg ndax loolu règlement ak texte la waaye daal ñu ngi ñaan ministre bi mu jël ki nga xam ne moom mooy Malick tegal ñu ko mu jiite ndax ñun loolu ñoo ko bëgg loolu ñun waa làmb yëpp ñoo ko bëgg kon ñu ngi koy ñaan eh, bu fekkee dégg na message bi naka defee noonu ko mais ñu ngi jaajëfal nag ñëpp eh, ñu kontaan ñëpp ah waa Bawol kookal la Pablo waa Bawol waa Pikine waa Géejawaay waa Tëngéej ah waa Yëmbal e eh, waaye nag di félicité bu baax waa Mbuur yi nga xam ne ñoo ko jëloon daaw ñu ngi bu baax a baax a baax buñ senoon nag dañuy bokk waa Mbuur Eh, ñu ngi ñaan seen seen autorité seen autorité yi nañ leen jàppale eh, ñu ngi ñaan ñu génn xaalis bu bari jox leen ba nga xam ne duñu duñu soxla dara saa bu ñu amee mas dañuy ñëw génn seen xaalis ñëw jël oto football ñëwaat kon autorité yi nga xam ñoo nekk Mbour ñu leen di ñaan eh, ndax Mbour daaw lu ñuy def dafa rëy dañoo jóge Mbour ñëw jël coupe bi tey am na am na si ay xale yu bari yoo xam ne man xaw ma leen woon peut-être Nandi leen woon waaye xam nañ leen te tournoi moo tax kon ñu ngi ñaan autorité yi nga ñoo nekk Mbour nañu jàppale waa Mbour ba ñu mën a bokk si tournoi bi ñu ngi tirage te ñoom nee na bokkuñu ndax transport dafa metti kon ñu ngi ñaan ñi nga xam ñoo nekk mbuur nekk autorité wala ku mën a nekk bonne volonté nañ ci jàpp bu baax a baax a baax ah waaye eh, ku ci mel ni Bombardier Bombardier war naa mën a génne benn 1 million bu dëgër mais jox booy ah ñu ngi ñaan lool waa Thiès bëgg nañ bokk ñëpp bëgg nañ bokk waaye dafa affaire moyenne la quoi kon ñu ngi ñaan ñëpp nañ ciy jàpp ah waa bool bool bool ba léegi nii ñëwaguñu waa bool Tapha Tine ah Tapha Tine génnal benn jox booy ah. ah waa Thiès bokk nañ ah kon alhamdulilah ñu ngi daal ñu ngi daal képp koo xam ne nii ci làmb nga bokk nga ñëw bokk ndax affaire bi yemul Dakar kese affaire bi làmb rek la kon ñu ngi ñaan waa Mbour waa Thiès waa Kaolack waa Fatick waa Louga na ñëpp ñëw ndax lépp làmb la te defar làmb rek moo ñu tax a pour gars yi xamee ko noonu. maa ngi leen di ziar yéen ne sa toog sa sant man benn proposition laay def comme par tey jii tirage bi ki njëkk génn mooy recevoir par exemple.

war a taseeg beneen équipe bu ko war a fekk si. Mm. ñu dem gis autorité yi ne yoof mm. comme ñoom Kéba Kanté. ñu ne match bi tey yow yaay parrain bi. mu dem mu génn ak mbabu njabootam. lañ waroon financé si match bi yëpp seen histoire yëpp moom mu gàddu lépp. indi ay nitam. jàppale làmb te nag ñun koy proposé na doon nitu làmb ñoo xam ne ay nitu làmb la ñu mm, bëgg làmb comme par ñu ne Pikine bi Ziza nekk présenté xam nga. tey jii ñu ne benn kilifa wu ne Pikine koo xam ne làmb lay dund moom comprendre nga ñu ne ko yow tey match bi écrit nangam moo fay football ak écrit bu fa war a ñëw. Mhm. yaay parrain d'honneur bi. proposition boobu laa laay laa joxe pour le moment quoi ko kontaan naa je vous remercie. Mhm. waaw gars yi di leen nuyu di jégalu ci retard bi vraiment affaire yi rafet na trop. bëgg fàllu tamit suñu kilifa la suñu lépp la bu waxee rek pour man waratuñu am lenn luñ ci teg limu wax tam idée bu rafet la waaw comme li nga wax sànq si Ousmane rek ñu ngi si doon déggante ak moom tamit waxtaanoon nañ ci ba suba lañ jox rendez-vous sax 15 heures moom nag amul jot da nga koy comprendre waaw ñun ñi nekk ak moom ñoo ko xam parce que ay 2 heures 1 heure 3 heures la ñuy nekk des fois man léegi nañ ko proposé def ko parrain d'honneur man bu ma demee ngoon naa ko wax te dina ko nangu incha allah xam naa ne du gàntu loolu te bu ma ko waxee tam dina ko def. waaw ku ci am beneen idée tamit boo wax rek nga sànni mais pour l'instant daal nañ ko def parrain d'honneur ndax lii ñuy jooy fii yëpp maa ngi koy wax bàyyi dafaa démb ñii teg nañu ñii tegaguñu xam naa ne bu ko yëgoon dina gérer lépp démb taw bi moo tax gisantewuñu waaw incha allah mais nañ ko def parrain d'honneur daal comme li nga wax tamit nañ ko def ci fair play xam nga xam ne kaf la foo agréé defuñu ko ngir leneen lu dul loolu buñ fa ñëwee tamit xam nga ñu wàccee tension bu baax a baax des fois tamit neer yi day tàng. ñi di waxe xol quoi yoy yeb nañ koy éviter te xamné fo la rek vraiment malik dila ñaanal yalla ci li ñu sumbu ni yalla nañ ci dugg ak jamm yalla may ñu ci ndam dal inshallah ok jaayef bon damay am lu ci doli di remercier aussi malik bi fi tok dal parce que idée bi dafa rafet. ñi ko waron def defuñu ko. moom mom idée bobu def ko. présent man ni ma nit ku la fekk ngay nelaw mu yee jox la ndek bu la diggé agn rek gëm ko. mooy jëmm ji toog comprendre nga parce que idée bi dafa rafet am na ñeneen ñu ko waroon def defuñu ko parce que idée bi day boole violence bi ñuy wax kërëb kërëb pour mu dañ lii moo koy dindi ok merci jërëjëf merci beaucoup ok merci bëgg waaw ah, ah, salaamaaleykum sama gars yi maa ngi leen nuyu ku ne ci turam ak santam dem wax ne xëy na sax saa yi nu mu ko waxee rek bu waxee rek kenn war a teetu la wax te et puis mu jëkk a fëlee sax moo jëkk rafet ndaxte tey jii nii yaakaar naa ñi fi daje ñëpp ay responsabilité lañu ay kilifa lañ comme maanaam lamb moo ñu boole man loolu laay yokk ñaax gaa yi comme que làmb moo ñu boole yaakaar naa lii football la fooree day yokk ambiance bi rek tey jii nii bu ma waree bëre fuuta mii sama mbër man moom dañuy bëre mais loolu ci làmb la mais tey jii bu ñu demee ba Malick xool initiative bi mu doon geste noble comme ni ko saa waxee rek keneen moo waroon a xalaat lii mais mu jógee ci moom kon dañ koy rafetlu heureusement ba ñu xamee Malick ci lu rafet dara taxul ñuy wax ñun duñ solo kenn bu awaka li nga bi dof dong lañu wax malik kenn du mom sidé bi mu def ni yalla nako yalla def ñu dem ba diko liwdé comme niñ ko waxé roi des arènes dem bañ naan diw mo fi man ba ñepp diko futa yit wax lo xamanteni manam yefi noble la ndata tay ji ni mu ñew dal jël nitam rek tay lu nit ñi doon joy mu ne diw buñ ko ko parané dana ko jël tay ji imagine toi lu rafet li mu ñew dal ne amna équipe yu mankalé tay ji bu ko ñewon yeb ko lolu du graw da ngay motel kon koku dañ koy saluer di leen li dong lañ ci doon ñaan di ci ñaax mbeur yeb nak parce que manam football sax am na tension mais chaque jour yow war nga ma gaañ sax ma comprendre daal di xamne fo reel la parce que ku ne yaa ngi daw leen ñu di la ŋaañu ne Serou Fall diw de mo yàqoon mas ba mo door diw ku ne dang koy daw parce que du ay affaire jaay doole fo reel la rek xam nga ñu baña wacce wàccee tension yi di rafetal lool di wax ne Cissé bi rafet na lool yalla nañ dem ba ay yeneen i yeneen i année ñu di ko kii. noonu lañ def. nous avons aussi un problème. Nous avons aussi un problème. Donc, nous avons une relation qui est très importante. C'est ce qui est Nous avons un problème. Si vous avez 50 millions d'euros pour engagement. Nous avons fait un stade, qui fait la finale. Donc, Lolo, je vais vous dire que c'est la troisième édition. Nous avons fait pour l'ENN. Nous avons fait pour l'ENN. Mais ce qui est fait pour l'ENN. Si vous avez fait deuxième édition, nous avons passé. Nous avons fait affaire bi kagn lay am affaire bi kagn lay am amul ku ci bokk ku ci bëggul bok donc mu nek lo xamne ne dañ ko wara saxal parce que diggante saison tëj na ak saison ubbi bo boo amatuñ luñuy def dañuy hivernalu ñi nek ci euh yalla téré ñi nga xamne ñu ngi ci lu bon sax dootuñ ko tal ñu ngi ci li ci affaire sport bi donc mu nek lo xamne non seulement côté physique day permettre mbeur mi mu nek ci défar cardio parce que ñëpp xam nañ ne cardio dafa bok ci sport buñ bu wax hivernal moy nit ki day préparer cardio pour mën am endurance ki football 60 minutes buñ ko nee ñëwal bëre 10 minutes di nga gis effet yi muy def ci yow donc pour vous dire que affaire gañu gañu aussi ñu ñaan yalla suñu borom musal ñu ci ci contact li ñuy naan noo mbeur warul football lolu jama japp ne xeyna ñaka comprendre esprit sport bi la parce que mbeur warul football mbeur bi buy préparer cardio ci terrain ba am na ñuy football pour te préparer wu mais bo xolé bu dee affaire u gaañu la mën nga di contact sa écurie nga gaañu donc ni nga mën a gaañoo foofu mën na yéeg moto di ñibbi gaañu noonu nga ko mën a gaañoo fii sport la rek bu ñuy préparé wu te relation yi ci juddu moom ma ci gën a neex parce que gis naa keroog euh, soq di témoigner tigre la sax tigre bu somoon bon il paraît am na combat boo xam ne ci tigre bu somoon la dem préparé wu te ci tournoi bi lañ xamante mosuñu seq loolu loolu témoignage la ba won bi mu defee fut ki yam bay ñibbi di ko gërëm mu ne ko noo gërëmal ci initié tournoi bi tax ñu xamante c'est un exemple boo xam ne am na yu bëri yu am xamuñu ko mais xëy na tournoi bi moo tax ñu gën a miinante loolu rek nag mooy objectif bi nga xam ne moo ñu ñi gagné daaw waa Petite Côte amuñ ci dara mais ñoo gagné rek xëy na moo ci tax mu gën a neex leneen li tour groupe bi ngeen def ci whatsapp bi bu ngeen ko seetloo diggante bi day tax avant ñu yegg ci terrain bi parce que bu ngeen xoolee mbalagante bi ci nekk ak lu nekk tëkkuwante beek yooyu yëpp. dafay wone esprit fair play bi nar a am ñu jàpp ne ñun ñooy organiser ñun ñoo ko teg ñun ñëpp la du man nañ ko jàpp kon suñu affaire yëpp bu ngeen seetloo sax décision bu ñuy jël damay ne nañ ci waxtaan ci groupe bi ba pare mu nekk décision boo xam ne ñun ñëpp a ci d'accord ñu demee noonu ñi nga xam ne dañ leen gagné da ngeen di gis ñu continuer te ñëw ku mel ni moo Dia bi ñu leen gagné premier tour terewul tous les matchs day ñëw bu ay affaire wu ñagas ñagas ak ay werante ñoom ñooy ñëw ay bulldozer ñoy ñew di calmer donc lolu def ci am solo ngela fi ñuy bakk naan du continuer def nañ ko première année def ko deuxième année troisième année nañ fexe réussir ko donc côté xaalis bi aussi euh ñu ngi seet naka lañ koy gérer ba mu gëna a oyof daaw xëy na occasion amutoon pour ñu jéem rendre compte mais daw bi ñu joxé ku nek 50000 biñu démé demee fay stade biñu bi ci demi-finale yi sax lépp jeexoon dama obligé comme dañu amone yakar ci ñu non dañuy sponsoriser bu ngeen seetloo ñu ngi doon def sponsor ay sponsor yu ñu doon def euh, ñu ngi doon def né diw parrain mais même Gaston yal yalla yàlla ko yalla yërëm mo yëkati deux cent cinquante mille bi confectionné final bi ay t-shirt yu ñu def hommage à Gaston bobu ci dafa tolof tolof la nek donc bu ñu ko defaatee ren nekkul dañu xaar ba mu jógee fii ñu rendre hommage donc dama jàpp ne comme groupe lañ nekk ñu proposé ko parce que keroog rek maa ngi koy wax ma kan ne ko defuñu ko woon pour xaalis mais dafa liggéey ci làmb te comme waa làmb ñoo booloo ñu ne nañ ko def rendre hommage Gaston keroog bi mu feebaree ñu seeti ko loolu la njëkk a wax ne vraiment gis naa li ngeen def maanaam dëjal nañ ko te deewagul maanaam fexe nañ immortaliser action yi muy def ci làmb te moom mu ngi nii di dund. donc bu loolu amee diggante bi mu dëddu mu ñëwaat donc euh, war nañ mën a continuer feddale colère hommage à Gaston boobu bu ñu yeggee ca final ba ñu def ko imprimer ay t-shirt wane ne moom la ñuy delloo njukkal ci li mu liggéey ci làmb leneen li Ablaye Diouf Sarr lañ joxoon comme parrain moo jamoo ñu ko facilité loon boole ko ak moom jour ji daf ñu yónnee benn enveloppe foog naa nëbbantewuñ quatre-vingt mille la woon biñ ko dajee ci kanamu ñëpp ne jënd leen ndox dimanche dina recevoir ñaari équipe yi finalu après teral len diggante bi nak mu nek ci ay xat-xat ba légui lenen tegu ci parce que lépp aussi loy def ci affaireu khalis da nga ko ñi ngi koy bokkal dafay jaadu ñu koy xam bala kenen di fogg ne lenen da ci amone légui policier yi biñ ñëwee ñëpp xam nañ ñom fuuta xam nañ ni ñuy organiser lamb metti na trop ci charge té ñom dañu japon né xëy na am nañ ndimbal bu tollu non ñu ñëw ay añak yooyu yëpp ñu régler ko heureusement directeur stade bi def ñu ko oyofal ñu koy remercier bu baax muy malik Ba vraiment yombalal nañu ko mais liñ ci jotone def ay dépense ay trophée ay ay coupe ay loo yi ñu tegoon ci taal bi ak charge yooyu demone nañ bu liñ am xaju ko mat dama obligé gagner, presque ay quatre pour ñu compléter ko mais li ci amone solo yep c'était pas l'argent li ci amone solo moy succès bi ci amone promoteur yi ak reporter yi football première heure parce que promoteur yi dañ ci woné won fair play gis nañ seen match bi daaw nu mu demee woon ni mu jeexe woon ñàkkuñu woon mais erreur moo amoon ci ñoom diw dina tiire du tiire euh, bi mu passé ba ñu tas match bi man dama leen woo comme ay mag lañ ay responsable ñoom falu ne ko nañ bàyyi ñële continuer ñoom aussi ñu am compréhension ne amul benn problème donc loolu rëq-rëq yooyu di am dañ ciy jàngat pour bii ñuy dem loolu bañ ñu ci fekk d'ailleurs falu proposé na ma dina am liste bu ma envoyé pour que ñooñu ñëpp ñu considérer ni ñooñu ñooy seen équipe boy pour ñu ko quoi pour cadre de la parce que li ñu tax a pour ce qui est wala dogal na sax amul ba waraloon nous reporter yi ñu def match d'ouverture ñu football bu avant une def finale bi mon succès trop Le euh, promoteur bi sponsor bi jox dara Non, la fait ressources yi cotisation mbër 50 millions

personne d'honneur bi moy parrain bi euh wa Grand Yoff yi tey Max ak gaay yu bëri même Fouta ñu ci doon wax amoon nañ idée ci Ousmane Sy Diasner donc Fouta ak ñom tay Max yep ñu ñuko doon yombalal ba waron nañ gisé ak mom ci facilitation ñom Fouta pour xol ndax bi mën nañ ko def le parrain mu nek le parrain parce que avantage bi ci nek c'est vrai que soxlawul sax visibilité day dimbalé wa Grand dimbalé monde sport nous gis comme c'est un acteur de la lutte Nous ne kooku buñ ko ko comme nous ñu à Diouf nous ci médiatisation aussi nous def parce que nit bu nous lu aussi nous jaadu ñu dogal euh, gars nous am instant nous lamba amatul activité amatul kilifa yu ñu donc TV TV nous di filmer en direct ak kuy communiquer ci yéen ñi nga xam dañ leen baye xel ñuy ne drapeau diw la bon pas drapeau mais on parle sous le parrainage de Ousmane Sy lolu aussi dinañ gëna a activité yi muy def donte soxlawuko mais day nekk dette suñu bor suñu côté pour pour pour rendre ko tuuti ñukul ci li muy def. bu dee loolu ànd ngeen ci ak yéen ñi ko gëna jégé vraiment mën nañ dé tay ñu japp né tay tournoi bi moy don le parrain d'honneur ci ki bi après sponsor yi nak joxe nañ fu nekk après dañ koy top képp ku am facilité aussi. ci koo xam ne jege nga ko muy un bailleur muy un sponsor comme ni ko Modou Dia defoon am yéene ci Diouf saar keneen aussi mën na ko def am yéene ci keneen ñu dem ci moom. lii daal mooy pour bañ a gën a yaatal genre compte rendu ci li xewoon daaw en attendant ñu dugg ci bu ren bi jàpp ne rek réussite bi mooy réussite ñëpp comme dem nañ ba ñëpp bàyyi ko xel ñëpp di ñëwaat nañ ko def nañ ko def man je pense que ñu pérenniser ko am na ci solo trop trop trop am ñëpp bëggoon na ñëw nag mais ñëpp mënuñu ñëw. Et eh, ñu def ak ñi fi ne fait joof yor da Nous nañ ne dañu bëgg na dañu bëgg mais xam nga Petite Côte muju nous ñu ngi ci tournoi mais li tax muju ñëw dafa parce que gox gox fay ñu football nga transport bi te te kenn joxul kenn subvention nga pare boy yi yenn Nous yi te dëkkuñu même gox dañuy ñëw ci ñom yi parce que fi may ñibbe dafa sori ngay gënné sa poche day mujj 10 ci ñom donc ñu comprendre né loolu moo tax vraiment amuñu moyen pour mëna a bokk mais seen xel mu ngi fi. voilà lii la laa bëggoon ubbee waxtaan bi surtout di inviter tout le monde ci fair play japp né vraiment li liy juddu ci li bari na trop te kilifa yu bari ñu ngi ñuy seetaan bu tournoi bi amé amna ñu ma woy ci diaspora amna ay kilifa même ministre des sports bi bi ñëwé ñëwee drapeau chef de l'état bobu du won ministre sax. mu ñu doon naan seen tournoi daaw bi maa ngi ko doon seetaan pour diir que lépp dangay def dara fekk la ci pour wane ne ñëpp ak ñu woon bu ñaawoon rek noonu lañ li ñuy bàkkee day mel ni dañ ko dëgël